bàkkaar yi bari na ba kenn mënu cee mucc waaye dangay fexe baril sa ay tiyaaba ngir mu mën ko nëbb moo waral Cheikhul Hajj Malik dugal na ci taysiir benn bayit boo xam ni saa boo ko jàngee dañ lay bindal tiyaaba ku aji màkk junni yoon aju nangu nooy def dangay wax alhamdulillahi di taysiiri yallaahu nazma daraari lahu yallaahu yallaahu soo ko waxee sept fois nga teg ci wax alhamdulillahi qabla kullu ahadin walhamdulillahi baada kullu ahadin walhamdulillahi ala kulli xaal wax nañu tamit saa boo sëlmalee ñaari rakka fajar nga wax alhamdulillahi di taysiri yallaahu subhaana man laa yaalamu qadrahu gayrahu nazma darari lahu yallaahu yallaahu subhaana man laa yasifu alwaasifuuna qadra sifaatihi nga jàng ko ñetti yoon dinañ la ya bindal ci tiyaaba lu tolloo tasbihatu malaika yi Mana malaaka yi yalla am yépp ci digënté asaman ak suuf bis bobu lañ ko ca sàbbaal danañ xayma ni mu tollu ñu bindal lako ko ci ay tiyaaba bokk na ci jagle bayit bi képp ku ko saxo di koy jàng bët bu set téeméeri yoon njëkk jant bi di fenk yàlla dina la wërsëgal ci alal loo mën a yore say njaboot soo ko jàngee ci place junni yoon yàlla dana fa wàcce naataange ak xéwal gu bari ak barke alhamdulillahi di taysiri yallaahu nazma darari lahu yallaahu wax nañ ni nit ñi xamoon njariñ bi nekk ci bayit bi dootuñu noppalu ci di ko jàng guddi ak bëccëg bayit bi mooy jumlatul insaanul jaamia bi nga xam ni mooy feeñ waaye xadratul jamaa wal wujud koku ci moom la yàlla di wattu nizaamul wujud